Euh, merci de nous rester fidèles sur sans limite euh, mbokk internet ji safoo di euh, seetaan di am mbégte rek saa su ne di jàkkaarloo ak yéen ci seen chaîne préférée tey nag ñu am mbégte jàkkaarloo ki nga xamante ne moom moo di monsieur Babacar Touré nekk journaliste d'investigation umpalewu leen nag jamono yu ñu génn Sénégal jot na dund ay journée yu doy waar ndax it nag ay manifestations yoo xamante ne nii jot na fee am ginnaaw bi nga xamante ne nii tege nañ loxo ki nga xamante ni moom njiital parti Pastef Ousmane euh, Sonko ñu fas yéene nag sekk waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di monsieur Babacar Touré bu euh, Kewoulo euh, ci situation dëkk bi ak naka la ko jàngatee mais laata lool ñu bàyyi la monsieur Touré nga nuyonteeg internaute les sant ci sans limite. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan fii ci sans parce que dama daan wax waa Sénégal ak doom yi Sénégal Gambien si nee nañu il foo ñu dugal leen ci waa Mauritanie nee nañu foo faut ñu dugal leen ci doom yi Sénégal lañu même bu fekkee dégguñu Sé euh, du doom yi Sénégal dañu dégg wolof donc bu boobaa war nañ mën a dugal ci nuyo bi yaatal leen tey du nuyu euh, internetu sans limite euh, ñi nga xam ne ñooy am occasion seetaan ñu ci biir interview bi. jërëjëf monsieur Touré mu mel ni rek comme ni ma ko waxee ci njalbeen ba dañuy waxtaanee rek lépp loo xamante ne ni xew na ci réewum Sénégal dernièrement mais laata loolu rek ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo xew la journée euh, du mars gis nañu ne mu nekkoon journée boo xamante ne c'était assez mouvementée waaye itam ñu gis ci euh, ñaari discours yoo xamante ne ni euh, ki nga xam ne moom moo di président de la République monsieur Macky Sall prononcé na ko itam ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko itam ginnaaw ba ñu ko bàyyandee def na itam ak ab discours. ñu bëggoon nañ ñëw foofu def benn décryptage gis nañ ki nga xamante ne moom moo di président de la république def euh, discours am ñu bëggoon a xam foofu noonu ban jàngan nga ci def parce que y a des points essentiels yoo xamante ne yaakaar naa ne tudd nañ ko ci et am na loo xamante ni xëy na président comprendre na ko à travers jeunes yi ni ñu jógee daal di euh, xeex ban analyse globale nga def par rapport ak euh, discours président Macky Sall. waaw bu ñu koy tàmbali. ñu dugg ci li nga xam ne moo doon discours président Macky Sall euh, dama trouvé nii le président dafa comprendre dafa xamul wala boog bëggul te gis wala boog il mal informé ci li nga xam ne moo tax doomi Sénégal yi génn wàcc si mbedd bi parce que bu fekkee ni moom daf ko bëgg yemale ni ñi génn ci mbedd mi parce que couvre foofu bu ñu leen tëjal bu ñu leen bu ñu leen imposé di tëdd 9 moo tax ñu génn ci mbedd bi c'est que comprendre bu fekkee ne dafa foog ni amuñu liggéey loolu rek moo tax nit yi wàcc ci mbedd bi c'est que comprendre li xewoon keroog le huit mars c'est la conséquence de presque huit ans ou bien neuf ans de démagogie huit ans yoo xam ne. jeunesse su sénégalaise du ma wax sax jeunesse su sénégal mais askanu senegal ñi leen jiite xamuñu fu ñu leen di yóbbu jaay doole bi bari na euh, luubal seen xaalis bari na pratiquement en huit ans ou neuf ans de pouvoir de du président Macky Sall la ñu mës a dégg détournement yoo xam ne kenn mësu ko dégg ci Sénégal Macky il faut ñuy rappeler ban contexte la ñëwee ci nguur gi. nit ñi dañu amoon 12 ans de règne de Abdoulaye Wade ñuy wax xaalisu Fesnam ay 6 milliards la ñuy wax ñuy wax Karim Wade ñuy wax ay Samuel Sarr ñuy wax waa kër Abdoulaye Wade ñàkk jàmm bi nga xam ne teg nañ ko ci askanu Sénégal noonu la Macky Sall it ñu jaay ko doole keroog bi mu ne nañu ñëw ci xaalisu ANOCI bi ñu ñëw déglu ci ki nga xam ne mooy Karim Wade mu wax nu Sénégalais yi fan na dugal suñu xaalis Macky Sall di président assemblée nationale mu ne du fi ñëw. xëccoo boobu sénégalais yëpp ne jaay joole bi duñ ko nangu ñu rangé wu jàppale Macky Sall mu ñëw mu dig ñu mu ni yoonu yokkute defe naa ni euh, sénégalais bu nekk sa biir kër xam nga ndax da nga yokku wala da nga wàññeeku depuis euh, président Macky Sall c'est un homme de not génération même bu fekkee ne ñun moo ñu mage parce que man matuma papa mag la ma féete dafa juddoo après indépendance ñun ñu juddoo après indépendance yëpp nee na ñu tubaab yi nooteel bi ñu nootat Sénégal duñ ko nangu dim buñ ko fekkoon duñu nangu li demee noonu tey ñun ñu am chance ak opportunité fekkee loolu moom lépp lu baax ci senegal ñu jël ko jox ko tubaab yi dividende yi wala ñu jox ko euh, gan yi dividende yi ñoom seen bopp ñoom ñi bokk seen bennoo bokk pàccoo ñu jël ko séddoo ko ñun ñu nekk ci biir dëkk bi am même ak ak yelleef yi ko jom ñu mel ni bokkuñu buñ ci tegee loolu ñu jóg ne dañuy noot kenn jaay ko doole jaay ko doole de façon boo xam ne dafa flagrante yëkkati lu mel ni tuuma bu rëyee ni tuuma euh, njaaloo teg ko ci koo xam ne bu nu seetee seen tuuma bi gis ni lii yëpp ay inventé la loolu moo taxoon sénégalais yi wàcc si mbedd bi. tënk mën nañ jàpp ni c'est un ensemble de choses yoo xamante moo def ñenn ñi daal di senti li nga xamante ne moom moo di li wolof naan ñëkk daal di génn ci terrain bi daal di nag fas yéene jàmmaarloog euh, ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall ak nguuram. Macky Sall li ma la wax ne dama la ne il n'a pas compris le message c'est un combat contre l'injustice maanaam xeex jaay doole bi ñuy def saa su ma amee opportunité jàkkaarloo ak ay caméra damay wax kaaw waa boo fa bayot fukki nit ak juróom gendarmerie section recherche bu Issa Issa Issa colonel Issa Diack jàpp ñaari fukki nit ak juróom-benn dugg leen ci kaso bi ñu tëj leen ñu ne leen euh, euh, dañuy def euh, instruction depuis trois ans ñu ngi dugg si ñeenteel at bi ñu dugal leen ci kaso bi ne caabi bi ràpp seen ginnaaw amuñu benn élément de preuve contre ñoom ba pare ñu ne kenn bu mu ko wax. Macky Sall ba jëlee ci pouvoir bi ñaata crime ñaata drame ñoo am fii mu ne maa ci teg sama conc muy sàccum xaalis bu ñuy def. mooy tuumaal détournement bi ñu def mooy euh, lu ñu toppee kii di nga xam ne mooy rakkam di Aliou Sall mais ay ñoom kaawu ñoom Bougazelli mi nga xam ne opération bu mu doon def bu ko bu ko bu réussiroon fii musiba naaru laay la fii ci Sénégal gis nañu histoire Thione Seck ak fu mu mujjee man sama bopp def naa benn enquête boo xam ne pratiquement wéet ci benn xale boo xam ne mu ngi fële Abdoul Fam la tudd nekk ca Fuuta surtout Souleymane Ba mi nga xam ne mooy bras droit wu Farba Ngom mooy mooy géwélu Macky Sall sëtam jël na paakam mu jam ko benn xale boo xam ne 13 ans la am mu butti ko rey ko sur place nu jël dosi boo yow yëpp teg ci seen conc xale bi mu ngi fii di doxantu alors que rey na nit bu 14 ans. kaawu viol bi si Kéwoulo dafa ñëw ba mel ni comme réceptacle nit yi di ñëw di ñu woo def nañ ma lii jaay nañu ma doole c'est-à-dire injustice yi dafa bari donc yooyu accaparé ñu doon xaar élément déclencheur Ousmane Sonko a été l' élément déclencheur léegi nag ñu doon xaar président de la République mu ni dégg naa leen mu ne dinaa régler naa bàyyi justice mu liggéey dinaa yëkkati sama conc ci kaw ay dossiers yi ma ko teg dossiers yi su ma koy wax may fàttali euh, ay ay ay ay nit ñu bëri ñu dee ci camp de concentration prison privée yu ka sëñ Modou Kara kenn waxu ci dara man sama xel si yooyu yëpp lay dem léegi bu ñuy wax viol. benn cas viol ñaata cas viole yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal kenn réglé wu ko basi ba si benn boo xam ne man sama bopp man maa ko géré xale bu jigéen boo xam ne fii la def interview ak ñun Kéwoulo bi mu amee huit ans xaw ma six ans la ko papam commencé sakku di sakkuwaale ay rakkam ñu jël waa ji ko tribunal ñu bàyyi ko ne contrôle judiciaire ba tey waa moom mu ngi vaquer à ses occupations di continuer def lu muy def léegi nag euh, am na ku ku ne une justice appliquée à un seul est une offense faite à tout la société bu ngeen tegee ay daan ngeen ne lii mooy yoon te yoon boobu ngeen fas yéene koo teg daan ko benn nit kase askan wi yëpp ngeen tooñ bu fekkee ni Ousmane Sonko ñoom am nañu les preuves ci li mu def moom liñ ko tuumaal moo ko def nañ ko teg yoon mais nañu teg yoon képp koo xam ne doomi Sénégal ga loolu moo doon yoon Macky Sall waxul loolu ba tey gis ngeen band yi reykat nit yi samba yi fit euh, Euh, waa kër ñàkk jàmm yi terroriste yi yor fital di tiire ci kaw nit ñi mel ni ay lapin la ñuy tiré kenn waxul enquête bu ubbeeku jëm ci ñoom parce que ñu lu ñuy inventé ay image la yu ñu gis ñuy dóor ay bal di def ay chasse à l'homme en Dakar kenn enquêté wu ci loolu la sénégalais yi wax laaj ko contre Macky Sall mais moom fàtte na wala boog dégluwul wala boog dafa déglu ñu koy nag quoi parce nañu ci biir mbooloo mi benn nit kase bu leen ne ki lan la leen wax ñun lu tax ñu génn mooy couvre feu 21 heures ñu ne ah ok kon nañu wax ni couvre feu 21 heures la beneen ministre bi moom taxaw mu ne ñu ay terroriste lañu mais bëgg nañu au moins ñun dañu ragal terroriste terroriste gis nañu euh, njuuma yi nga xam ne def nañ ko un peu partout muy France boo xam ne man falaa laa dëkk gis naa fa euh, novembre gis naa fa novembre 2015 gis naa fa lu xew Charlie Hebdo gis naa li nga xam ne Mohamed Merah def na ko man dama ragal terroriste ñeme ma ko donc ministre bi suñu ne terroriste yaa ngi fi ngir yàlla nañu woon terroriste yooyu ñu génne leen ak seen i fetal ak yooyu parce que ñun ñemewuñu ko ñu ne ñu ay rebelle MFDC ñoo ñëw fii ci biir Dakar ñoom ñoo infiltré nañ ñu woon ñooñu ñun bëgg nañ gis loolu mais lu fekkee ne suñu doom yi suñu rakk yi nga xam ne ñoo génnoon ci mbedd bi ne doy na ne jaay doole bi doy na libéré Ousmane Sonko ñooñu ñooy ay man pour man sa ministre la waratul mën a continuer di gérer l'intérieur du Sénégal sax la euh, bëggoon ñëw laata ñu ñëw ci euh, euh, discours nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko dégg nañu ñëpp ministre de la justice la mu wax nee carrément itam ba mu demee ci France 24 li mu wax moom moo di ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di manifester pour la plupart ay mbër loo mbër la yoo xamante ne ñu ngi ci écurie d'aucuns disent ko loolu analyse am la mais est-ce que analyse boobu jàpp nga ne c'est c'est c'est une analyse pertinente. non du analyse ministre de la justice dañ ko war a toppee ndax li mu am amul dañ ko war a topp ci yoon dafa inventé parce que pour ñoom li yëpp ay politique la c'est-à-dire politique naka nga mën a naxasaal naxasaay xelu nit ñi. ba nga ci génn ñun nekkuñ ci politique benn bàkkanu doomi aadama bu robee fitna la musiba la dëy la dëj la pour askanu Sénégal yëpp mbër yi ñoom ñoo xam ñoom en tout cas ñoom ñoo am les l'appareil de l'État ñoom ñoo am toutes les tous les moyens de renseignement mais ñii ma gis ñi niroog ay mbër ñun kukk am seen doole yoo nekk si ay 4 x yoo xam ne kenn amul plaque d'immatriculation dañu gis leen ni siège yu maison parti socialiste fa la amoon seen siège am na ñoo xam ne sax dem nañu ba booru kër Macky Sall parce que romb nañu fa ay gendarme ñooñu ñoom bu ñu ne ay mbër lañu moom nañu wax mbër yooyu ñoom naka lañu leen recruter parce nguur gee leen recruter loolu mooy dëgg bi. léegi nag wax na na ba mu ni dafay calmer euh, colère sénégalais yi parce que dañu amul lu ñu lekk plan Covid xaalis ak yooyu mais bu ñu fàtte ne douze milliards nañ ko fi. man bokk naa si ñi nga xam ne dañu décrier ni ñu séddoo xaalis boobu man xaw ma kan moo ci am mais man sénégalais de l'extérieur la France laa dëkk man période boobu fekk na liggéeyu ma mais aw ma si ñaar dërëm te bëri na ñoo xam ne xam naa leen amuñ ci ñaar dërëm suma cas sax c'est exceptionnel mën nañ ne peut-être man nekkuma ci dans le besoin excessif xaalis bu ñuy yónnee woon fonds Covid yi ñan nañ ko fayal mooy seen seen ministres yi yeeg seen seen DG yeeg affaire yooyu nga xam ne tukki woon far ñu tëj buntu yi seen ginnaaw ñooñu lañ ko jox. biir Paris bi nga xam ne fa laa xam ngan di scandale juddu na ci foofu ci euh, consulat ba ndax nee nañu dañoo bind ay nit ñu leen neex ñoo xam nu ñu séddoo xaalis mais ñi nga xam ne ñoo ko yelloo joxuñu leen ko léegi nag dellu siwaat di wax ne ay trois et quelques milliards bu ñuy génne trois cent et quelques milliards yooyu naa ni man dugg suma poche du sa poche du dugg si poche boo yi nekk ci mbedd bi c'est comme tey li ma gisee mu ne il va la jeunesse bu fekkee ne jeunesse bu Macky Sall la war a rencontrer mooy bi nga xam ne ñoo ko naan euh, Euh, sallngaari buur lam tooro buur gédéel yow yaa fi gën yaa fi gën a rafet mare ma fi dàq bu fekkee ne ñooñu la war a génnewaat ñu ñoo ci palais ba tàcc ko ne ko président tout va bien ko gonga c'est pas la peine parce que ñii nga xam ne ñoo génn mooy ñi nga xam ne dañ leen tere liggéey mooy ñi nga xam ne amuñu benn perspective mooy ñi nga xam ne ñuy tëdd bu fajar di jot du ñu bëgg sax fajar jot ndax bu fajar jotee rek say problème commencé ñi nga xam ne ñoo génn jàkkaarloo ak Macky Sall mooy boo yee nekk ci Médina nga xam ne seen baay yi benn néeg lañ am ak seen yaay ak seen i rakk bu guddi jotee ñu ne xale góor yi dem ci bi parce que ñoom ci mbedd bi la ñuy fanaan seen parents yi ñooy fanaan ci néeg bi bu parents yi génn ci suba dem uti ji dara xale seen guddi mooy seen bëccëg boo xëyee nga ne leen dootoo leen nelawati guddi gi 21 heures dem leen ngeen dugg ci néeg yi ak seen papa ak seen yaay fekk mënuñu fa nekk booy ci kaw terrasse yi la ñuy toog ba fajar jot ñooñu bés bu ñu amee opportunité buy tax loolu dàkk ba ñu mën a jël seen cycle normal parce que seen cycle normal mooy lan mooy guddi ñu taxaw parce que seen parents yi ñooy occupé néeg yi bëccëg yi parents yi dañuy génn dem uti xale yi occupé néeg yi parce que loolu système boobu moo fi am dugg leen biir Médina dugg leen biir caaro yi dugg leen biir Pikine ba ci biir parcelle bëri na kër yoo xam ne dangay fekk papa ak juróomi doom ci benn néeg alors que dañu ne régime Macky Sall indi na un truc de social bu bari année sociale boobu kan lañ ko jox. am na ñoo xam ne ni ko sama benn jigéen di waxee ñu ngi noos euh, xaw ma gunu guntaale xaw nu mu koy waxati dañuy noos ba mu neex leen mais la majorité des sénégalais dañu am problème ñoo ñu la kenn dégluwul ay fonds yu ñu wax xaw ma fonds tappale yu ñu wax ay PAP PAP 221 xaw ma PAP PP 220 ay projet de formation ak yooyu seen i militants ak ñu leen takk ak seen i doomu bàjjen ak seen i doomu géwél lañ koy jox discours procureur de la république discours bu dangereux la discours bu ministre de la justice discours bu dangereux la discours Macky Sall discours bu nelawloo nii nit ñi la. Euh, gën ñu gën a yaatu ci euh, dossier bi nga xamante ne moom la ñu inculpé ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mais laata loolu rek ñu gis ne moom itam def na discours euh, foofu noonu itam mën nañu wax ne Sonko dafa ñëw india ay exigence am ban analyse nga def par rapport ak discours ki nga xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko. damay wax ni. le 8 mars 2021 nit ñi dañu yeewu ñu ne Ousmane Sonko a été placé sous contrôle judiciaire mais dama naan sénégalais le même jour Macky Sall a été placé sous contrôle populaire justice mu ngi bàyyi gët Ousmane Sonko ne ko lii amuloo droit lii amul droit lii amuloo droit askanu Sénégal dañu ne Macky Sall lii doy na lii amatoo droit. ñaari contrôle moo génn keroog contrôle judiciaire ak contrôle populaire Ousmane Sonko keroog bi mu jógee jàkkaarloo ak sénégalais dafa tenir discours boo xam ne ci Macky lañ ko doon xaaree et j'ai bi ma déggee Ousmane Sonko mu ni on exige damay exiger Macky Sall mu dem seeti les blessés te mu ndàmp leen Macky Sall dans son discours ma dégg mu ne dinañ seeti blessés nañ leen dàmp ci discours Ousmane Sonko. dégg naa encore mu wax loo xam ne lu am importance tey jii bi coow lii di commencé ku mel ni Ousmane euh, euh, Cissé Lo nu mu tudd encore Moustapha Cissé Lo lu mu ñu wax mooy mu ne waa MFDC ak terroristes yi ñoo bokk ci Pastef ay rebelle lañu ba ci euh, suñu papa ji Ahmed Khalifa Niass waxoon na wax jooju ñu basé wu ci discours bu mel noonu waa Casamance la waa MFDC. Ousmane Sonko keroog ñu génn waa Fuuta génn nañu waa Kébémer génn nañu waa Saint-Louis fa la ñu fi commencé foofu sore na ak MFDC waa Kédougou waa Kolda ba ñuy yegg waa Ziguinchor tout le Sénégal était dans la rue te xale yi nekk fii yi génn ci mbedd mi kenn mun la ne kii Joolaa la wala kii Wolof la même bu fekkee ne ñoom au début de l' affaire gisoon ngeen ñu naan dañ doon jàpp policier bu ñu jàppee dañ la laaj ndax yow Joolaa nga wala lan nga ñu bëggoon ethniciser coow li mais Sénégal dañu won ni ñun ñëpp bokk ndey ak baay amul par amul amul amul amul waasoo amul par parlo ma déglu ci discours mu ni Sénégal xamuma je ne mérite pas li ngeen ma defal xaw ma lu ma leen def xaw ma lu mu tax ngeen jox ma considération bi mais man xam naa ni jox desalatoo leen ma dara man maa leen desal Ousmane Sonko wax na loolu c'est très important mais l'autre chose qui tres important importante ci li mu wax mu ne mu ngi lancer un appel au au au MFDC képp koo xam ne danga nga duggoon ci àll bi parce que da nga ni euh, tubaab euh, comment on appelle sénégalais yi gouvernement Sénégal considéré wul waa Casamance tax na nga jël fital ne waa Cas waa Sénégal faalewuñu joolaay mu ne leçon wu ngi nii pour yéen ndaxte man ñii jóg tey bi mu gouvernement bëgg a faagaagal ñii jóg tey di ma défendre duñu waa Casamance kasi le numéro 2 du PASTEF il s'appelle comment. Euh, su su Birame Souleye Souleye Diop kooku du Joola du MFDC. Euh, euh, Diomaye Faye kenn ko wax ni MFDC la même bu fekkee ne c'est le cousin des Joola ainsi de suite ay ñoom mus ay ñoom Moustapha Sarré ñu nekk ci biir Pastef ay ñoom maître maître Moustapha Tall ñooñu kenn lan wax ne ay MFDC lañu donc dañu gis ni c'est tout un Sénégal la waa ji Ousmane Sonko rassemblé dans son discours discours boo xam ne ci Macky Sall président Macky Sall lañ ko doon xaaree. Macky Sall wax na ci nasaraan la waxee ak sénégalais yi def na deuxième discours boo xam ne wolof la mais gis nañ ni dafa wax apaisement dafa wax ñun ñi ñëpp benn lañu kenn mënul génnee ci kenn mais le lendemain li ñu nekk di def ci biir Ndakaaru ak li ko wër di traqué xale yi di leen jàpp di yóbbu ci yoon du loo xam ne dafay rassembler du loo xam ne dafay apaiser waxoon naa ko dama koy waxaat tout le temps. justice paix sociale bu ñu koy commencé dañ koy commencé d'abord par rendre euh, par àtte dëgg loo amul dëgg rek lu lalul ci dëgg rek du am suite naa ni euh, foofu itam am na euh, solo ñu ñëw nag ci euh, li nga xamante ne moom moo jur coow li te mooy dossier Sonko ak Adji Sarr gis nañ ni ginnaaw bi nga xamante ne teg nañ loxo ki nga xamante ne moom moo di Sonko ci affaire présumé viol bi nga xamante ne moom lañ ko takkal manifestation yi gën na bëri ci réewum Sénégal ñu gis ni itam ay yu ñu xaw a choqué te mooy que ni yenn force de l'ordre xëy na doon nañu tiire ci askan wi mais aussi on a vu des jeunes yoo xamante ni doon nañu euh, sacage ay ay entreprises françaises comme ci mel ni Auchan totale mu doon nag yoo xamante ne ni euh, nekk na ay images yoo xamante ne jot na circuler euh, te jot na itam interpeller nit ñi par rapport ak lan moo tax yenn jëf yi déjà force de l'ordre di tiire ci ay manifestants ci dëkk boo xamante ne dañ ne xëy na euh, dëkku jàmm la ak dëkku euh, démocratie euh, ndax loolu nekk na loo xamante ne nii war nañ cee bàyyi mu sedd wala ñu ci teg conc comme ni ñu koy waxee. waaw mooy loolu wax y a pas de paix sans justice gis nañu fukki nit ak benn seen bakkan rob nañu ci yëf yi kenn moo ci am 35 ans. ñi si des ñëpp 14 ans la 12 ans 8 ans ainsi de suite ay xale xale yooyu naka la ñu mën a constituer une menace pour benn force de l'ordre parce que force de l'ordre luy différence entre militaire ak gendarme ak policier mooy que gendarme et policier même bu dee gendarme après ay militaire la ñu en même temps mais dañ leen jàngal lu ñu wax maintien de l'ordre maintien de l'ordre bokkul ak leneen cest à bu dëkk jaaxasoo ñoom jàngal nañ leen yan arme la ñu war a jël yan moyen la ñu war a def pour défendre pour arrêter pour rétablir l'ordre mais ce qui s'est passé et surtout ça a commencé à Bignona le jeune Cheikh Ibrahima Coly mi nga xam ne dee na balu fetal ci dënn lañ ko dóor ci nit ci bopp ba ci ndigg li dañ ko wax région mortelle la tudd région mortelle zone vitale foo dóor bal mën nga rey nit. force de l'ordre ñoom xam nañ loolu déjà. xam nañu loolu dafa am tamit lu ñuy wax dans l'utilisation d'une arme waxuma la sax arme létale parce que arme arme létale arme létale mooy bal boo xam ne dafay reyee amuñu droit ñu utiliser ko. lu dul peut-être gendarmerie dans un cadre réglementaire mooy ñu attaquer seen caserne parce que caserne militaire comme brigade gendarmerie wala yooyu kenn amul droit ñu attaquer ko dañu am droit. wala am nga droit ngay utiliser sa arme dans une situation de légitime défense mais légitime défense tamit muy notion bu ngande boo xam ne du ñu am temps ma développé la ko fii léegi comment se fait que ay force de maintien de l'ordre ñu dem ci terrain bi di yóbbu ay fital bal yi ñu gis yi rey Cheikh Koli du yu ñu wone 765 la te ay arme de guerre la ay arme lañ yoo xam ne ci ay fusil d'assaut lañ ca def donc foofu ñi war a yor arme bu mel noonu moom a jàkkaarloo ak population parce que ñooñu population yi dofunu nee nañu force de l'ordre yi la gendarme yi la militaire yi la tey jot nañ ñun témoignage wu papa yi xale bu mujje gaañu bu naa ma Silla Sagna papam nee na ab lieutenant moo ànd ak ay gendarme ñëw mu biir kër ma dégg ñu naan ko moo lieutenant xale bi ñu faray 14 ans la am xale bu ndaw Parcelles Assainies ñëpp gis nañ image yi ne nañ commandant de police mu tire bal yooyu bu nu ko réglé wulee réglé dara Sénégal nag man lu ma lu ma yéem ci ci ci yëf yi mooy c'est un état avec une longue histoire d'impunité tey jii su ma la doon limal depuis man bi ma commencé xamee 1981 ba tey j'en connais ay nit yu bare bare bari bare ñoo xam ne rey nañ leen te doo xam ku leen rey finalement naka la mujjee boo dugg ci bavure policière yi nga xam ne am na région de Dakar ba ci yeneen région yi ay Dominique Lopi ca Kolda ay Elimane Touré fële ainsi de suite ab dëkk kenn du ko mën a tabax ci lu mel noonu mais li ñuy fàtte mooy su nu amee tous ces témoignages là yi ñuy garde bu fekkee ne gouvernement Sénégal dafa ci dara parce que gouvernement Sénégal day naan day enquête rek téye affaire yi après nit ñi fàtte ko c' est comme ça qu' ils ont toujours fonctionné parce que dëkk boo xam ne rey nga lu nga lu mat deux mille et quelque ci sa population te musuñ ciy dugal kenn kaso réew moom bu bu reyee ñaar ñett kenn dañ naan garaawut su ma ne deux mille et quelques personnes bateau la Joola laay wax konteel ñaata drame ñoo am lépp ñu teg lépp ci suuf dëkk boobu pour mu am jàmm problème la nekk. mais tey alhamdulilah am na nañu suñu lu ñu wax des des lois supranationales mooy loi yoo xam ne ñoo féete kaw loi wu Sénégal mooy la haute cour de justice la CEDEAO mooy le groupe de travail des Nations Unies et la CPI la cour pénale internationale parce que yi lu ñu xamoon mooy waxoon naa leen il y a yu ñu mënoon def 1988 du am trace il y a des choses yu ñu mënoon def ci ginnaaw du man trace tey booy ko gis télé ci poche mu ngi ci poche am dañuy filmer dañuy am seen identité yi. policiers yooyu moom parce que ñoom xalaat nañ ni mission yi ñu dem dafi ay Darfour ak mission Nations Unies mooy tax ñoo am xaalis policiers yooyu duñ ci dem parce que nit ñi nañ leen jébaane. léeg sax seen i propre collègue yi nekk si policiers yi nekk si groupe yi xam ne diw moo rey ñooñu ñooñuy suuf la ñu nañu diw mii moo tiré woon ci bal ci kaw diw. parce que policiers yi du reykat nit ñi du policiers yi ak militaires yëpp ñooy ñooy ñooy ay criminels ak ay délinquants boo amee ñu nekk seen biir ñoo xam ne ay délinquants lañu ñoo xam ne ay criminels lañu ay tueurs lañu am na ñoo xam ne dara du leen ko jaral donc ñooñu nañ leen dénoncer mais tout ces crimes là il faut que ñu teg ko ci yoon ñu juger leen. Euh, le pire le pire des crimes du moins mu ngi commencé ci ki nga xam ne moo ñëw teg fitna bi ci Sénégal ñu jël seen seen tontu teg ko ci ñooñu. seen malaano xama ni ñu koy waxte teg seen tontu protéger ñooñu ne eh, ay dem la ngeen topp booy yu doon toj ay ay Auchan ak affaire yooyu booy yu toj ay Auchan toj ay magasin taal ay affaire lu ñuy ñaawlu la mais il faut nga comprendre la psychologie des foules pour nga comprendre gis nga erreur buñ gaa yi njëkk def dañu ne dañu am ay njiit ay Clédor Sène ñoo nañ xalaat Assane Diouf ak ñooñu malgré que ñooñu dañ doon waxtaan seen waxtaan kenn waxul ne dañuy monter ci terrain bi ñu ne ñooñu lañ jàpp gis nga booy wax ak ful da ngay bàyyi ay leader mu am ay leader nga teg pression leader yi nga jëm waxtaan ak leader yi tey jii bu mbooloo taxawoon Karim xurum xàq mu ngi koy wax mu ne bi mu demee taxaw devant tribunal bu ko mbooloo gis nee na ngeen dem nañ dem palais mu daal di ànd ak ñoom palais de justice mooy tribunal bi mu taxee booy na ko grand nañ dem nañ dem nañ dem mu xam ne bu demee mbooloo mii responsabilité mu réy na si ñoom mu ne leen déedéet mu wàññeeku donc bu wàññeekoo ñëpp ay wàññeeku même dans une armée da nga gis ñu ne ki mooy général ki mooy lieutenant ki mooy sergent mooy yóbbu troupe yi parce que boo yow yaay décider ci sa comportement ak li ngay décider moom la foule bi di décider foule bi ñu gis tey euh, le 8 mars balaa le 8 mars le 6 et 7 mars xam nga le 5 mars ñooñu amuñu di leader amuñu benn chef bu leen di wax li ngeen def ni ngeen def léegi loolu c'est dangereux parce que ku mu neex nga jóg nga ne yow yaay chef donc la première erreur c'est il ne fallait pas arrêter ay ñoom Clédor seen ay ñoom Guy Marius Sagna ay ñoom assan Diouf da ngeen di waxtaan ak ñoom Bougazeli détourné na fii def na faux billet ay ay ay ay xaalis yu bari ñu dugal ko quelques mois ñu ne ko euh, nu ñu koy waxati liberté provisoire Diop Iseg yàqataan na benn siif na benn xale bu ndaw yàqataan ko ba mu ëmbal ko ñu dugal ko ci kaso bi quelques mois ñu ne ko damal nga doxantu ji les exemples son là am pagaille ba pare nag fi ma fi nga xam ne c'est important pour moi gouvernement bi war na réfléchir su lu ñu wax des mesures de de de de mesures de punition lu bokkul ak kaso kase xam nga kaso fii ci àddina kaso mooy la sanction suprême doomi aadama bu bu ragalee tux yàmbaa ci mbedd bi bu ragalee def yenn affaires yi dafa ragal ñu yàpp ko dugal ko ci kaso bi mais ku dem dugg ci kaso bi ñu dugalee ci kaso bi nga visité kaso kaso dootu la safati dootu la safati l'exemple le plus simple mooy ay euh, Abdou Karim Gueye xurum xaq mooy Guy Marius Sagna ils sont tellement habitués à la prison que boo leen tey bu ngeen marché dinañ leen jàpp dinañ leen dugal ci kaso dañ naan dañuy marche parce que suñu yoon nekku ku xamul nag kumpalee nekk ci moom donc bu ñu jël suñu xale yëpp ay xale yu ndaw ñu di leen découvrir le milieu carcéral c'est dangereux. ban beneen stratégie ñu mën a teg. bëri na Dakar dafa salte fu mu nekk nii. booy sax travaux d'intérêt général. ne leen dem leen raxas yi par force da ngeen dem raxas yi oto yi wala ñu jël ñii ñu leen da ngeen nekk ay militaire wala ñu ne dama ngeen béy ceeb xaw ma ndax découvrir ngeen Sénégal comme man ni ma ko découvrir mais après après après euh, àllukaañ bi ba Thiès ay àll rek la loo xam ne mën nañu fa def lu ne partout ci Sénégal ay àll am pagay jeunes yaa ngi fii yor seen doole duñ leen liggéeyloo par exemple tey ñuy bëri ñu nga xam ne ñu ngi leen di jàpp ci kaso yi mais ñooñu mën nañ leen jël punition bi ñu changé leen ko ñoom dañ koy nangu sax ñoom di béy ceeb boo xam dëkk bi. ñu dem defar yi ay tali dañ koy nangu moo leen gënal ñu leen di tëjloo ci ay néeg yoo xam ne dañu fay tëdd rek matin midi soir il faut ñu réfléchir alors euh, euh, juste rek ñu euh, euh, daaneel daal di dugg rek ci benn question bu essentielle te mooy que ne gis nañ la nga investir bu baax ci dossier Sonko Adji Sarr ginnaaw bi nga xamante ne nii une jeune masseuse de 21 ans daal dina accusé ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko de viol et de menace de mort ñu gis ne nag def nga ci liggéey bu am solo dugg ci dossier yi procès verbaux lu nekk rek nga daal di koy nag càmbar ngir mën a xam naka la mbir mi demee justement foofu noonu ñu bëggoon a xam parce que déjà analyser li nga xamante ne moom moo di euh, procès verbaux yi ak nan la euh, mbir mi demee jot nga cee déceler ay imperfections euh, mais tey jii nii gis nañu tamit am nañu taxawoon ne yenn ci ay procès verbaux yi nga xamante ne moom moo nekk di dox daanaka la ca nekk comme contenu nekk na loo xamante ne nii du dëgg wala boog c'est pas fiable mais tey jii nii dans l'ensemble li nga xamante ne moom moo di dossier Ousmane Sonko aji Sarr lan la ñu war a retenir pour que nag ñu xëy na gën a mën a considérer dossier bi daal di koy nag teg de côté. première précision procès verbal bi nga xam ne man gis naa ko xam naa bëri na Sénégalais yi ko gis c'est le seul procès verbal qui existe amul beneen dañ naan non lu ñu yor ak yoruñu kenn yorul dara boobu procès verbal kase moom moo existé moom la Sénégal yëpp gis bu nu sukkandikoo ci procès verbal bi kase gis nañ ni enquêteurs yi dañu conclure ni euh, incohérence ak ay ay ay waxi naka sa kàndang yoo xam ne Adji saar wax na ko tax na ne ba ñu gëmuñ ñu ko loolu la procès verbal bi wax procès verbal bi aji saar nee na euh, daf ma violé ñeenti yoon dafay ñëw ànd ak pistolet te balaa moo ñëw di ma violé daf may ànd yónni message ne ma maa ngi ñëw daf may woo téléphone mu ne ma maa ngi ñëw deuxième fois bi ñu ko entendre mu déedéet du ma du ma woo daf may yónnee message ñu ne ko ani message yu mun a supprimer naa ko. Adji moom moom moo ni encore ni ki euh, moo wax xaritam bi tudd euh, Aïssata Ba mu ne ko génnal comme ça Ousmane Sonko moom moon ma siif daf ko ne génnal abis Adji Sarr boobu moo dem ànd ak jàkkaarloo gendarme bi ne ko est li may def nii duma ci am problème tonton. Adji Sarr moom moo dem ci gendarme bi mu ne ko ñaata at nga am mu ne ko 17 ans laa am mu ne ko an yor nga parce que loi dafa ne l'état des personnes se justifie par un acte d'état civil pour nga xam atu nit ñaata la il faut mu jox la acte d'état civil mu ne ko jox ma quarante mu génne quarante bi ñu wane ni Adji Raby Sarr mu ngi juddu le 3 mars 2020 2000 2000 loolu moo tax c'est un signal très très très très très vilain lan jox Sénégal Ousmane Sonko yéen a ngi rappelé wu bu ñu koy arrêté ci le 3 mars jour boobu la Adji Sarr am pile 21 ans coïncidence Adji Sarr moomu Me El Hadji toog na ci plateau parce que xamuloon lépp li xew mu ni attention parce que ci dossier bi Adji Sarr mën na am sax mineur la wax na ko ci plateau seen TV Me El Hadji Diouf moomu moo ubbiwaat encore gémmiñam mu ni ñu Adji Sarr dafa baax. dafa jub xale bu jub la moo tax mu indi rakkam pour muy liggéey ci salon ba te rakkam jooju bu fekkee ne rakkam la kon problème am na parce que ki ñu ne rakkam la elle a vingt cinq ans Aïssata Ba donc loolu mooy Adji Sarr bu ñu koy xool vingt six vingt sept la war a am bu fekkee ne rakkam am na vingt cinq ans vingt six ans moom bu ëpp na loolu mu ne c'était la première fois ñu tëddee ma ñu gis ni kooku am na doom doom ji am na ñetti at en donc problème am na ñu gëstuwaat encore nu gis ni Adji Sarr moomu tuumaaloon na nit ñu bare bare bare bare bare ba tuuti ñu rey leen tuumaal na benn professeur encore bu sant Sonko loolu enquête de personnalité moo ñu ko may lu bokkul ak enquête de personnalité mooy euh, euh, fi mu dëkk Maya dans les îles du Saloum mais nga ñëw fii Dakar marché Liberté 6 nga dem marché marché marché euh, xamu nu ñu koy waxati marché tayal la xamu marché nu ñu koy waxati booy gis nga boo génnee Etika Etika bi Etika bi euh, pas Etika Hyundai yi siège Hyundai bi boo jëlee mbedd boobu dem tout droit xam nga genre montagne bu ndaw la def am na marché bu nekk à boo ko rombee une deux troisième koñ boo duggee à droite benn terrain basket mu ngi foofu benn tailleur baa ngi foofu ci suuf foofu la Adji saar lalee plan am bi koo fa laaj aji Sarr ñu taf seen nopp yi nag mooy jëlu ñëpp mooy rey bi léegi rey boobu gelu ñëpp boobu mu bëgg ñu gëmloo nii moom c'était la première fois ñu tëddee ko ñun ñu gis si ubbi ba teg ko ci boole ci balaa loolu di am Adji Sarr doon na wër ci quartier boobu temps yi damaa am buzz damaa am buzz parce que damay maase parce que bi mu jógee bi mu demoon ci salon boobu dañ ko dàq bi ñu ko dàqee ci salon euh, Ndeye Khady bi dafa dellu dellusiwaat ci madame taal boo xam ne kooku da ko doon utiliser comme bon mu koy nettoyal foofu mais bu madame nekkul moom moo fay nekk si atelier de tailleur la moo fay nekkal mais au laa de madame Tall bi ñu bari dafay dem foofu seen kër yi di leen nettoyal ñu koy fay. le temps bi mu demee ci Ndeye Khady ba ñu ko dàqee mu dellu si la commencé madame jëlaat ko parce que amul fu mu dëkk mu commencé naan temps yii dama amoon buzz ndax dama doon liggéey ci benn salon de massage may maasi Ousmane Sonko foofu la Sidi Ahmed déggee wax ji mu waxtaanee ko ak ay nitam ak seen kii ba mu wax ji yegg ci euh, euh, Mamour Diallo. bu nekkoon domaine impôt bi nga xam ne moom la ñu impliqué dans l'histoire des 94 milliards moom ñoom euh, SAR ñu préparé seen plan mais ba ci koñ bi ba ci épicier bi ba ci jaaykat ya nekk ci koñ bi kenn ku ne wax na la ni man damaa ëmb Ousmane Sonko ma ëmbal waaw koo xam ne sa copain la ba mu ëmbal la kooku nu mu lay violé moom mooy wax ni sama damaa ëmb damaa ëmb Ousmane Sonko wax na ne sama tante sax dem na fa wax nañ ak Ousmane Sonko d'accord na Ousmane Sonko dafa bañoon léegi d'accord na léegi sama copain la sama far la damaa am buzz naka lañu ñu mën a tourner loolu lépp mu nekk viol bi ñëw ñu déggee loolu ñu lal seen plan Macky Sall dafa daanu ci piège cest à automatiquement bi nga xam ne lii plan la danga war a wax gendarmerie ñu enquête képp ci ak képp ku enquête képp ku ci laal ci lii ñu téelu ko gis nga lii rek mënu na effacer tous les actes d'injustice yi nga xam ne gouvernement Macky Sall teg na ko si ak askanu Sénégal boobu ak léegi mu ni Ousmane Sonko sama adversaire la sama ennemi la. mais gars yi ñu ngi koy faagaagal te xam naa ne lii complot la moo wax gendarmerie mu ordonné ñu def enquête bu indépendant ñu jàpp leen même fekk nañu takk si man nañ leen teg ci yoon bu ko defoon xolal ñun ñi ñëpp dañuy génn tàccul ko. mais c'est que enquête bi sax selon capitaine Touré dañ ko bâclé. mais bâclé bi xam mooy lan te jii yow balaa ngaa ñëw si man lan nga ma def da nga ma envoyé message dama Babacar ma ni laa tudd dama bëgg ñoom interview dafa bàyyi trace on ne peut rien faire par la téléphonie crime bu am. meurtre bu am ci monde bi la première des choses bi ñu def mooy réquisition de la téléphonie xam kan moo woo kan ak nan la bu ñu ne commettre nañu benn forfait fii li ñu njëkk a def mooy est-ce que nga mën la euh, Mariam Mariam ñëw na fi li ñu njëkk a def mooy borne xool ndax sa téléphone ñëw na fi à présentement c'est un élément essentiel du dossier nekkul ci procès verbal bi kenn deful réquisition deuxième chose officier de police judiciaire bu nekk am nga droit nit koo tasel sax su ma tasee ak sa caméraman bi ci mbedd bi xaw ma ko xaw ma ko man officier de police judiciaire la am naa droit ma téye ko dugal ko garde à vue pour vérifier moom mooy kan ak nu mu tudd est-ce que nekku nekkuñu ko recherché loi may na ma ko man officier de police judiciaire sans raison sa s'appelle VI vérification d'identité je parle su le contrôle d'officier de police judiciaire am nga ci droit gendarme yi xam nañu Adji Sarr day fen Adji Sarr ne ko tonton lii yëpp mbaa du ma ci am problème Adji Sarr proposé na ay Aïssata Ba devant les gendarmes dama lay jox xaalis nga dem sa yoon ay Aïssata euh, jigéen bi woo nañ ko téléphone di ko proposé 15 millions mu def ko au parleur gendarme bi capitaine Touré dégg ko woo nañ ko proposé que 40 millions capitaine Touré dégg ko donc ñooñu am nañu tous les éléments pour xam ne ñii tappale la lu ñu war a njëkk def mooy les mettre tout de suite en état d' arrestation les places yi. en garde à mais booy jël mesure de garde à vue da ngay informer procureur de la république procureur boobu la ne bàyyi leen ñu liggéey. Adji Sarr nee na ci guddi gi lañ ko violé la lendemain ñun dofuñu quoi ci dëkk bi lañ dëkk procureur de la république boo demee porter plainte balaa ñu laa tontu di transmettre dossier bi benn commissariat wala benn brigade de gendarmerie mun na jël deux jours minimum mais une semaine. Adji Sarr 23h la daw ci une heure du matin bind nañu plainte bi le matin section de recherche jot na plainte bi loolu naka la mën a deme boole ci ñu ñëw ci prélèvement bi jigéen wax naa ko tout temps ngeen baal ma première preuve de viol bu ñu xoolee constatation gis ñu blessure ci nit lu ñu njëkk a jigéen ñi mooy sa calson bu ko fóot indil ñu ko. Adji Sarr mënul indi loolu ñuy wax ay prélèvement vaginal ay dañ def ay prélèvement prélèvement luñ ci def xanaa peut ay microbe ak infection yi nekk ci yaramam la ñuy gis loolu la léegi nag ñu ngi wax waxu Ousmane Sonko ADN ak yooyu mais ADN qu'est-ce que un ADN man wax naa ak sa micro bi su ma paree léegi-léegi micro bu ñu defee prélèvement dañ ci fekk sama ADN mooy ay ay ay ay particule biologiques yu génn ci nit su ma la tegee sama loxo mooy pare bàyyi nga bàyyi naa la ADN su ma joxee ataaya boo naanee am naa ADN mooy joxe cigarette boo ko tuxee boo ko am na ADN boo ñàkkee am nga ADN su ma maasee sa yaram su ma paree am na ADN ci ngay koy xamee sax xoolal nit ku sol chemise bu weex bu génnee chemise bi après fii yëpp dafay ñuul c'est tout à fait normal bu nu amee ADN c'est tout à fait normal parce que dañ koo tëral ñu koy def massage mais encore danuy am problème lu ñuy wax euh, la la loyauté de la preuve une preuve l'obtention d'une preuve naka ngay amee preuve dafa war a nekk lu sell comme lu ñu naan lu lew naan sama jabar bi lew na ma preuve boo koy présenté dafay lew gis sa propre jabar boo ko bettee ci biir néeg wala nga yónni nit mu seet ko wala nga teg ko piège wala nga déglu conversation bañ nañ sa ba tey man ak yow bu nu waxtaanee su ma la enregistré soo ma porte plainte dañ naan naan amuloo droit enregistré nit mais amuñu droit enregistré nit enregistrement nit moo gën a moo gën a simple ñuy jàpp ay nit du leen dugal kaso mais ay nit ñu ne dañu complot waxtaan une personne deux personnes trois personnes ñu dañuy laalal Ousmane Sonko plan ñooñu dara du leen ci fekk nga foog ne loolu dëgg la encore non seulement le complot muy beneen crime beneen délit mais dañu toll ci lu ñuy wax association de malfaiteurs article 348 du code pénal association de malfaiteurs mooy lan man su ma la wooyee nga woo caméraman bi ñu woo ko ñun ñett rek bu ñu déggoo ñun dañuy dem defi benn affaire boo xam ne loi daf ko tere mooy association de malfaiteurs loolu rek dañuy tëdd kaso bokkul nag ak bu ko defee association de malfaiteurs chef complot atteinte à la sûreté de l'État parce que li ñu def nguur mënu na ci yëngu li ñu def leneen seen seen seen ñaawteef bi ñu koy def la nuit lañ ko def c'est une c'est une circonstance aggravante gis nga booy def braquage boo ko defee bëccëg bu dee 10 ans la boo ko defee guddi mën nañu tëj ba 15 ans parce que dafa circonstance aggravante la ils l'ont fait avec des moyens de locomotive de voiture bu fekkee ne justice dañuy xool est-ce que Babacar bu ngi ñëw def braquage bi bëccëg la wala guddi la guddi day gën a grave est-ce que Babacar bu muy ñëw dafa dox tànk wala dafa am oto bu mu indee oto dafa gën a grave encore donc ñii dañu tegale infraction sur infraction chose yoo xam ne ça doit pas rester impuni. non ça doit non non non euh, Sidi Ahmed Mbaye xanaa Macky nekk fii cent ans mais fii ba fukki at li li fii ba fukki at mën nañu ko bi gars yi bu ñu porté plainte sax léegi-léegi je les conseille ñu dem porté plainte léegi-léegi amuñu preuve ni Ousmane Sonko lu ñu koy toppee moo ko def mais am nañu preuve ni ñii lu ñu leen di toppee ñoom ñoo ko def Sidi Ahmed Mbaye euh, ku jigéen ki Adja Rabi foofu laa yemangum yeneen tur yi xam naa leen. mais du ma ko joxe parce que man du ma def leneen loo xam damay mettre en danger la vie d'autrui parce que tey su ma joxee tour gars yi dem jàpp tur kooku nit kooku dóor ko rey ko wala def ko dara dama am rôle bu ma ci joué man du ma yee fitna. c'est comme li may wax sénégalais yi dans le cadre de Maître El jouf ñu ne Maître El Hadji Diouf fële dëkk gars yi dem attaque kër gi taal ko desaan ndeke euh, buur buur siin moom bokk moomul kër gi dafay luwe te léeg sax. mu jaayante fitna ak boroom kër gi naan ko yow xamul ma tu sais pas qui je suis moi je suis je suis te kër kooku taal nañ ko tey kan moo ci perte kooku njëkk a perte buur siin day dem uti ji feneen bu mu dëkk donc fitna baaxul ñi nga xam ne nag ñoo yee fitna justice mënul dem te tant que ñooñu teguñu leen ci yoon ñooñu dañoo comploter dañoo déggoo li ma waxoon depuis si njëlbeen fa laa taxaw. gouvernement bi n'a rien à voir au début de cette action xamuloon yëgul fekkewul parce que ñoom bu dem gouvernement moo doon lal nii Ousmane Sonko du ci génn parce que lu tax du ci génn mooy dañ koy jàpp en flagrant délit yéen su ngeen yeewoon ñun ñëpp ñu gis comme DSK Ousmane Sonko ñu koy génnee mënate ko mais duñu xam nga sénégalais bi coow li ñu ko commencé naan est-ce que dëgg la est-ce que dëgg la Ousmane Sonko bi mu taxee mu ne demoon naa fa la sénégalais commencé ne ah na dem na fa peut-être am na mais bu ñu ko mënatee woon foofu est-ce que di naan dem na wala demul da gis ne dem na fa. donc c'était le premier point loolu moom laa lay wax ni état bokku ci bokk na ci deuxième chose mooy dañuy réfléchir tout ce qui est légal et ce qui est illégal maanaam tey man su may jaay drogue yow soo ñëwee nga nga fekk ma yor drogue di jaay ci mbedd bi ba mu téye wala nga fekk ma ci fenn mais soo ñëwee yow. nga ñëwul suma ma nga ubbi sama buntu oto sama ginnaaw wala sama biir kër nga ubbi nga ñëw fekk fa drogue boo ñëwee après nga dem nga ñëwaat pour jàpp ma wala nga jël drogue bi boobaa mënuloo ma topp parce que nga li nga def mooy c'est illégal d'abord pour nga mën a jot man illégalité bu may def je ne sais pas si je me fais comprendre su ma tëjoo ak jigéen ci néeg fekk dafa interdi yow boo ñëwee nga ubbi bunt bi nga ñëw fekk ma ci biir néeg bi. yow sa tort moom parce que t'as pas le droit nga ñu nag may photo amuloo droit obtenir cette preuve là en faisant quelque chose d'illégal c'est le cas de notre de l'un de boo xam ne dañ ne woon dafa doon dafa doon dafa ëmbal gelam mu naan ko demal nga yàq ëmb bi ci ñi jàppoon ko fële section de recherche mais naka lañ def pour ñu xam ko dañ ko écouter dañ ko déglu kenn amul droit écouter euh, def ay écoute lu dul pour prévenir un danger réel mais pas pour ngay espionner la conversation des citoyens Nicolas Sarkozy def na ko ñu moo nekk président France ñu dóor ko ay daan ndax loolu te ñu ne nañu dëkku démocratie lañu état de droit lañu dañuy inspiré ci France loo xam ne ñooñu demewuñu ko def mais ñun Sénégal ñoo koy def après ñu ne état de droit lañu donc ça c'est un problème jërëjëf yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo monsieur Babacar Touré nekk journaliste euh, d'investigation ñu ngi ci jeexintalu émission bi euh, lu duuf ci nag bi yëpp xajoo ci cin bi ñu bàyyi la rek nga joxe say kàddu yu mujj. waaw euh, kàddu gu mujj bu may waxal gouvernement d'abord mooy askan le peuple mënut a nekk ennemi mënut a nekk adversaire il faut pas que le président Macky ci waxtu yu ñu toll. Je crois savoir qu'il est un homme seul. très simple même fekkee ne ñii dañuy sol seen costume ñëw di naan ko oui monsieur le président oui c'est que c'est que au en définitif moom la sénégalais yi fal moom mooy le gardien des institutions moom suba bu ñu naree dem ci élection wala ce que l'histoire retiendra c'est que dinañ wax sous Macky Sall mais on ne retiendra pas ses conseillers ngalawaay moom la déglu askanu Sénégal xam ne askan un peuple kenn du ko domte un peuple kenn du ko fitnaal pour mu def li nga bëgg da déglu sa askan luñ koy ñaanal parce que ñun jàmm rek lañu ko bëggal luñ koy ñaanal mooy mu terminer mandaam par renverser la situation bañ a tegati concom di protége ñi nga xam ne ñoo ko jege livrer ñi nga xam ne ñoo ko sori na tëddee njaaxanaay li muy njëkk a def te ñu koy ñaan mooy mu bàyyi les conséquence ñii nga xam ne ay sàcc la ay kii la ñu lañ leen toppee ay problème matériel la na topp li nga xam ne mooy bakkan yu ñu rey mooy nit ñu jóg pour faagaagal askanu Sénégal boole ci mooy joxe lancer un appel à la jeunesse sénégalaise wax leen nii lépp lu ñu fi toj lépp lu ñu fi yàq ñun ñoo ko moom te yéen a koy fay suba ñun ñi ay mag lañu peut-être dans trente ans dans quarante ans peut-être ñun duñ fi nekkati yàlla rek a xam mun na am sox mu nekk suba mais lépp lu ñu fi toj lépp lu ñu fi yàq muy ay auto police muy mbedd bi ñu gas seen impôt encore lañ koy jël vie bi dafay gën cher pour ñu mën a am wéccit ñu réparer loolu. ngir yàlla bu ñu yàq Sénégal boobu parce que Sénégal la boo xam ne ñun dañ koy jël ñu dénk leen ko ñu delloo leen ko yéen fexe leen ba ngeen nekk ay citoyens responsables citoyens yoo xam ne nañu xam lan mooy seen àq ak seen yelleef ñu revendiquer seen àq ba mu mat sëkk mais ñu acquitté wu li nga xam ne seen yelleef la ba Sénégal mën a dem ci kanam jërëjëf.